kon na ma ko waxee woon ci Coupe d'Afrique bi képp koo xam ne yow am na loola yàlla dënk ñaanalal xale yi moo xam ci bi ñuy bind la di jàng walla bi ñuy lijjanti yoo xam daal loolu yàlla may daal def ko ngir gone yi mën a gañe walla boog ñu dem fu benn équipe bu Afrique mosul yegg loolu mooy ndamu senegal mooy seen ndam kon ñu ngi leen di ñaanal na leen waa réew mi ñaanal jàppale leen ngeen xam yenit it saa yoo leen laale bal ñepp ngi tit ñepp ngi bouger ñepp ngi tirer même ñu bokul ci football bi ci bir kër yi ci mbedd mi fu ne kon japp leen ne mbir mi du ay mbiru fo xam ngeen ko doy ndax ay professionnel ngeen waye japp leen ne tam match bu ne final la ci ñun ndax juroom ñaari match mo am ci tournoi bi pour ñu yegg final kon match bu si ne dafa am solo bu njëkk bu ëllëg bi bi ci topp bi ci toppaat muy premier tour bu ñu qualifié dem huitième bu ñu qualifié incha allah dem quart de finale bu ñu qualifié dem demi finale ah dem finale moo ciy teg andil ñu kubu coupe du monde yal na ko yàlla def waaye ak lu mën a am déjà yéen gàcce ngalaam seen der rafet na ci àdduna bi te ñëpp naw nañ ñu te it ñëpp dinañ leen tiit ku war a dajeek lion yi da nga da nga da gëstu da nga xool di nga dem ci caméra yi xoolaat naka ngeen di jouer pour jéem a xool fu mu leen di jaar kon ah, yàlla am na lu mu leen may yal na ko yàlla yokk dëgëral ngeen xam ne aussi nekkalu leen fi tey Sénégal yéenay yaakaaru Afrique eh, ba ma dajee semaine bële ak président CAF la il y a Afrique donc il faut qu'on dem demi-finale au moins